asalaamualeykum kuréelu jottale yóbbante sëñ Touba tey moo doon jokkook sëriñ Cheikh Mbacké foofu ci États-Unis ñu koy wax ko ci bésu lundi 27 ngir fàttali rek bésub altine 11 mars ci waxtu yor-yor Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul dafa feeñu jëmm ju ñuy wax Mor Cissé. Mor Cissé nag benn Gambien la bi nga xamante ne mi ngi daan dooleem fofu ci États-Unis nekk foofu di dawal camion ci seigne Touba nag feñu googu mu ko feñu daf ko jox ab yóbbant jox ko ci ndigal digal ko mu jottal ko murit yeb ci loolu nak lako suñu borom bolek ak sëñ Cheikh Mbacke ngir ñu and liggéey ci liggéey googe. nitu bëre nak dañ ko doon dégg di dégg sëñ Mor di wax ci mom waye xamuñu ko tay nak ñu jokkoo woon ak mom ci vidéo fon ngir sàkku ay leeral si jëmmam yi ak tamit di taataan ay digle yi nga xamante ne mën nañ ko mën na ko baaxee bokk jullit yépp ñu ngi ko fekk nag ci camion moom muy liggéey. sëñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. yàlla waaw ñu ngi leen di ñu ngi leen di woowee Sénégal. di leen ziar bu baax doon doon sàkku si yéen nag maanaam ay leeral. waaw ndax maanaam mbokk yu bëree bëgg nañ xam tuuti maanaam si jëmm ji. waaw ndax mën ngeen si baax yi tuuti rek. ah xanaa ñu jéem rek. waaw ndax wax sa bopp moom dafay xaw a metti daal. waaw nag ginnaaw bu ñu leen nuyoo di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant euh, Serigne Touba di sant jullit yëpp taalibe yëpp di ñaan suñu borom wàcce xiwal ak yërmandeem ci jullit yëpp. te boole ñu yoon bi ñun ñëpp àdduna hmm. ak àllaaxira hmm. man nag maa ngi tudd Cheikh Mbacke di doomu Serigne Abdou Mbacke ñu di ko wax sëñ Abdou Koumba Suuna moom Serigne hmm. Baara Serigne Touba mooy sama wajur foofu la ma sun borom boole ma bokk foofu mu jaarale ma foofu ma di ko ci sant nag bu baax a baax a baax a baax ndax maanaam juddu aku tur akub yar ak ki lay jàngal ñaari nit ki du ko tànnal boppam dañ ko koy wutal bi mo ko tale nak ma mag xamé nak sant yalla ci lolu rafetlu ko lol ndax réccuma ci dara di war ci man ñu def ko muy ab yar yobbu ma ñu jangal ma ma ngi jang dekk bu ñuy wax nduuf ñoma jangal ñoma yar wax deug yalla ba ma xam li ma xam ba delu sat sama wajur fekk len ñom itam ci togaay bu rafet tu sama wajuru gor, fekk mu tok ci ngor ak doylu ci lool la ko xam ba neug ni ci may waxe ci la ko xam nag bu ma doomu aadama bu ko ko ëppale sama woyu jigéen ma gis ci mom ak njàmbaar nangoo liggéey ta lu am jox ko doom adam yi ba paré di talu be tekki yoy daal ma gis ko ci ñoom ah muy lu ma neex ma jël ko ci loolé nak la fassiyé né nek ci la nek ba neug ni ni ma joggé fofu nak bima joggé Sénégal ma ngi toll sama fanwéri at ta ma ngi juddu 1963 ma ngi djumaaji touba ji ñoo maase waaw bi ma amee fanweeri at nag laa jógee Sénégal ñëw fii Amérique fi laa nekk ba ba nag ni daan sama doole di liggéey sax ci nag ak jaamu yàlla comme ni ma la wax rek lu ma amit ma doyloo ko bokkook samay samay mbokk ak jullit yi ci loolu daal laa nekk nii. jaar naa ci yu bari nag ñaw sax def naa ko fi affaire teer sax def naa ko fi ginnaaw ma jógee fi di liggéey ci ay ay wax dëgg yàlla fu ma fa jaarat maa ngi sant yàlla ndax dama liggéey rek ba bàyyi sama bopp ma nekk ci loolu ba yàlla dogal ay at ba ni moom mu mujj bàyyi ko fu dem ci école yi dem ci trop yi muy oto yu mag yi jàng ko ba man ko am sama licence muy permis bi ci laa nekk na di ci liggéey ci oto yu mag yi di dem fu nekk ci réew mi dem ak ñëw liggéey boobu may def bi ma duggee ci mbirum oto yi di daw ci laa xamanteeg seen morom moomu euh, comme doon liggéey ma ko fekk ñu xamante wax dëgg yàlla euh, ñetti weer rek laa fa defal moom jóge fa dem Afrique bi ma ñëwee Afrique ba dellu si euh, usine boobu te kii bi complet ñu ngi tëj fi ñu doon liggéey ñu euh, xamante boobu nag jàppante comme bi ma jógee Afrique nag doo liggéey mu xawoon euh, jàppewaat ma toogaan fa ab diir ci moment boobu nag wax dëgg yàlla ma gis ñu mu ci taxaw di ci sonn waaw ah, fu gis liggéey wala fu mu xam liggéey woo na fa euh, kii ma fa ma ànd ak moom ñuy lijjanti ci leen xamante daal ba ñu may kon ne di liggéey yor sama liggéey bi liggéey ñu kon ne di waxante ndax liggéey bi maanaam Ah, ci àll bi ngay nekk doo nekk kenn toujours yaa ngi daw boo daw na fukki waxtu ak benn ba jeex nga gaare noppalu fukki waxtu départ ci loolu ngay dund muy liggéey bu xaw a métti ci terrasse yëpp na ci la ñuy wéttante ci la ñuy waxante maag moom suñ borom nag feeñal mbir nii ci moom ah, muy le onze mars comme ni mu ko waxee rek ci kattan bi dana am naa ci ah, responsable daal la responsabilité daal lu sëñ di wax sëriñ Touba moom moo ko gisal boppam ah sëriñ bi yóbbanteel ko boppam mu ñaan ci yàlla yàlla may ko nu muy def ba jàllale ko suñ borom rek ci la ko boolee man ma di ko sant yàlla ci ma ci lenn ah bëgguma ci ku ma xam wala lu ma ci tiit te ñaanuma yàlla tamit gis ci saa bopp wala dara moom mbiram la moo ko moomal boppam gisal ko boppam ñaan yàlla am jafe-jafe pour mën koo jàllale ci la ñaan suñu borom suñu borom wan ko may ko boole ko ak ma taxaw ci comme maa gën a xam yoonu nag loolu moo tax ma taxaw pour nit ñi mën cee jot ak taalibe yi ndax waxi Serigne Touba la ku bi nga xam ne waxi Serigne Touba te da ko ne waxal waxalawaat te looy def na yàlla tax foofa la tàmbalee te wax yépp waxi Serigne Touba kon ñun li ñu war rek mooy wax ko tasaare ko taalibe bi yépp mën cee jariñ bi loolu amee nag ci laa daal di jokkoo ak rajo yi mu yéex ndax toll nañ ci weer boo xam ne dañuy dawloo koo ci jot ñu naan mbir mi dafa rëy am na ñu arrangé ñu arrangé moo tax nanguwuñ koo teg ginnaaw bi nag mbir mi amee noonu nag ah, ci laa leen ne nag ah, ñun nag jaral nañu suñu bakkan dafa Serigne Touba la xool ñu ci ku mu arrangé ak ku mu arrangé woon ndax Sëriñ Tuubaa lépp waxam la te mbir mi dafa mel ni ah, doomu aadama yëpp mën nañ cee jàngee ci lañ ko def ci internet bi mu def ci ay émission moom ci boppam rek def na ci ñaari émission ci rajo bi waaw ak beneen rajo bu ñuy wax rajo man Jaara mën lay jaw moo ko yor moom itam defoon na ci émission moom moo ko njëkk a bi affaire bi amee dañoo daal jokk daayir yi nekk États-Unis yëpp wax leen ko ñuy ah bu ñu amee daayira woote def euh, téléphone bi expliquer sëñ Mor wax ñëpp dégg fenn fu nekk waaye di fa ci lool lañ nekk daal di ko tasaare ah bëgg tamit doomu aadama yëpp jàpp ci ci loolu lañ nekk ci lañ fas kon mbir mi ah waxi sëriñ Tuubaa la te mën naa jëlee ñu bëgg nag taalu bi yëpp taxaw waaw jël wax ji def ko ab seetu teg ko sakkanam ko def rek di nga ci gis sa bopp di nga xam fa nga nekkoon dem di nga xam fi nga nekk tey di nga xam fa ngay war a jëm. xool ko baax kenn ku nekk nga xool. bu la arrangé nga sant yàlla góorgóorlu su la arrangé bi dem cee defaroo. ndax loolu rek mooy wax ji sëriñ bi moom bëgg suñu jàmm ak àdduna ak jàmmi àllaa moo tax rek. ak njabootam lañ la bu demee ba jamono soppiku ñun nekk li war a nekk ah lu mel ni bu amee kon sant yàlla lañ ci mën a def war cee gën a defaroo bu baax a baax. loolu nag la kon nag ñu ñëpp ci war a taxaw ku ko def fexe ba sa moroom jot ko comme ni ma ko ko tàmbalee sa bopp sa njaboot say xarit say dëkkandoo ndax seetu la rek jël ko teg ko sa kanam di nga ci sa bopp di nga ci mën a defaru àdduna ak àllaxira kon ñun ñu ngi ci bëgg lu dara lu taal bi jot ci ñëpp mën cee jot mën cee jariñu ah su ko defee ñu am ci ngërëmu sëriñ Tuubaa loolu rek lañ ci soxla soxla ñu ci lañ dara soxla ku ñu xam ndax ñu bon man sama bopp moom man yaakaar naa ne taal bi a man damay jàpp ne man sax naa ko la ko sans ma la ko man laa ko tàmbale jéem cee defar ñëpp ci war a jàpp ndax ñun fi ne nii ba mu génnee ba nëg ni ñoo ngi ci ndax ni ma la ko waxee rek ñun am nañ fi daayira boo xam ne online lañ koy def fu waaye nekk ci Amérique àdduna bu la neexee mën ngaa waaw weer wu nekk dinañ ci daj ñaar yoon ci lañ ko tàmbalee fi ne nii ndax ñun ñoo ko njëkk a arrêté mm-hmm. def ko ay cassette pour jox ko taalibe pour mu mën a tasaaroo mm-hmm. Mm-hmm. ci loolu tamit lañ ci fekk leen sax ci ci lañ fas yéene nekk. Mm-hmm. te mbir mi boo xoolee xam ne tamit am na leneen lu ci def. Mm-hmm. ndax sëñ Mor boo xoolee nee na la ci biir wax ji toog naa Serigne Touba ñaari waxtu. di waxtaan ak moom. loolu lu ne mën na cee feeñ. ndax li tax sëriñ bi wax ni demee ba ci kanam dinañ ko gis. ndax yàlla rek a xam wante wax ji lu ne mën na cee feeñ. ndax ñaari waxtu yu mu toog sëriñ Touba loola moom nee na wër la du asaar lu nekk biir te lu ne mën na cee feeñaat. moo tax muy liggéey la boo xam ne am na fu mu tàmbali wante mm. na nag ñu ngi ci taxawee ñun fii ci Amérique yi ak yéen itam ngeen jël ko nekk foofu fas yéene ci def ay commission tamit di ci waxtaan. Mm-hmm. nañ ci jàpp noonu ba fexe Europe tamit def noonu mu mën a tax. dañ jéem cee góorgóorlu bu baax comme ni ko ni ko sëñ bi bëgg rek ñu jéem cee nekk ba nga xam ne nii daal moom ëllëg bu ñu tasee moom ah wax dëgg yàlla du sonn du ñu sonn ndax lépp suñu njëriñ la. Mm-hmm. ndax damay wax ne ah, sëriñ bi ci boppam. Ah, jaamu yàlla la ji mu jaamu yàlla naxu ci yàlla benn yoon. Mm-hmm. Mm-hmm. liggéey bi mu liggéey rasulullah naxu ko ci dara. Mm-hmm. Serigne Touba naxu taalibe yi. benn yoon. yàlla tamit fay gi mu fay Serigne Touba deseelu ko ci dara loo bëgg mun na ko lépp jox ko lépp. kon kooku deseelu ko wan dala suñ borom deseelu ko Serigne bi. rasulullah deseelu suñ Serigne Touba un franc deseelu ko ci lim ko doon liggéeyal. ñun ñi tamit Serigne Touba deseelu ñu ñaari dërëm. Mm-hmm. kon ñun buñ foog ne sëñ Touba la ñuy falak suñu bopp dong la ñuy nax mm-hmm. te wax ji dafa leer nañ mm-hmm. lépp nit ñi teg nañ ci seen bët ñi nekk yoonu sëriñ Touba ngir intérêt nit ñi teg nañ ci seen bët leer nañ ñi ko topp te duñu julli duñu woor te mu wuyoo murit duñu di jox ak sa te mi ngi fi leer nañ ñi gis nañ ko teg ci seen bët ñu wax ci njabootam yëpp am na ci ñoo xam ne nii ñu ngi wër nekk lu ñu war a nekk dèjà di ko def ci lu ñu ko war a def ñi xam nañ gis nañ ko teg nañ seen bët. wax ji amul loo xam ne nii di nga ko gis di nga ko naan la nit nangu fi nekk. te nag bu wér ceeñ yaakaar xool nag di neex sëñ Touba moo gën xool di neex doomu aadama yi. ndax lu fi waay am sëñ Touba la. Mm. garab la bu ñor ba mel ni ñëpp nekk ci lekk for lépp sëñ Touba mm. ku ci yaakaaroon Serigne Touba am rajoom a ah, am ah, mbiram ci benn rajo rek la xaj wala benn télévision rek la war a jaar nax la sa bopp télévision yi ci Sénégal yëpp mën nañu xëy 24 sur 24 24 hours 7 days wax mbirum taalu bi nekk nekk rajo Serigne du nekk nekk télévision Serigne Touba suñ ko defee dinañ mën a liggéey Serigne Touba te du na yàlla na nag nag ndax boo xoolee bu ñu ko dugalee Facebook ak YouTube di ci jot ci ay doomu aadama su jaaroon ci benn rajo donc kon nit ñi duñ ci jot mhm. ay junnee junnee doomu aadama di taal bi nañu yeewu te xam ne naxaate yi dafa doy mu jeex ñu bëgg liggéeyal Serigne Touba li mu bëgg ñu def ko ci loolu lañ war a nekk mhm. naxaat yi dafa doy ndax li Serigne bi wax ci message bi ku ko xool tëdd wéet di xam ne lii lu nekk la mën nga cee teg si bët amul ma dem tëdd kum neex nag am kum naqaree na ku xool di nga gis kon nag nañ xool li nekk sëñ bi ñu def te bañ a xool lu nekk doomu aadama amul message bi arrangé na diw ak arrangé diw nañ xool li bu sëriñ Touba bëgg arrangé wu sëriñ Touba la mhm. ak ci fulla ak ngor bu mat sëkk teg suñu bakkan suñu alal suñu njaboot lu ñu ci fekk ñu jël man de foofu laa ci toll du ma ci deltu ginnaaw ndax ba àddina tukki du fi jóge parce que sëriñ Touba te li wax lépp nit ñu gis nañ ko kon nag ñoo war a am fu la naxaat dafa war a jeex am na loolu ku bëgg futti pour nga liggéey hmm. wante taalibe yi alal di sëriñ bu kenn ku nekk nag sa alal boo gisee ko yàq wax loolu la sëriñ bi def taalibe yi ak sëriñ bu baax la yoonal wet alal la kon nañ ko sàmm ni ko bëggee lii mooy wax bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah hmm.